bi sa ngi ñëw ñu laaj la noo leen sàmmee dee fi bàyyi noppil loo xamul laaj ñu benn xeetu nooteel la ubbeeku seen bopp sauf ki peur la ñu toll du ñu jaay réew mi si ci bëre fi comme dayi dof chantage askan bi bañu loof ñi fi tekkiwul dara sax i laa bëgg jaay taar mën a saaf ñëpp nekk star jeunesse bi ci référence fi ñëpp am xam-xam ba noppi xeeb sa moroom tey nit ku ne nga sikk mais umpul sa borom nag bante rek a fi ne waa ci leen ma seg suuf si amul taar ku mos dund di nga mos suuf si jigéen ñi bëgg góor yu baax mais pas kilifa góor yu baax te yor lu ñu laaj nga ne mu ngi fa boo yorul ñu bala pare yàgg la musiba ndax gaa yi lu ñu mënul yee asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu di nuyu ñëpp ku ci leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo ci Saturday bi kontaan ci yéen guys le combat continue amul bàyyi on lâche pas l'affaire on va pas nous la faire donc. Euh, di ñëwaat di waxtaan ak yéen rek ci tolluwaayu réew mi ci doxalinu suñu njiit ak li nga xam ni moo sabab suñu taxawaay tey mooy xeex bi nga xam ni moom lañ sumb yàgg na nag du tey yàlla def ak l'arrivée de Ousmane Sonko xeex bi gën a amplifié wu gën a am doole di ko ci sant nag di ko ci gërëm parce loo gis lu nekk rek dina toll foo xam ni yàlla day yabal ku koy mun a gën a yi yëkkati wala ku koy mun a gën a pousser donc combat bi nag mooy combat pour changer de paradigme changer de système ñu yàgg fi nag di xeex ak ay doomu aadama ay dinosaures yàgg di xeex ak ñi nga xam ne ñu am doole lañ yàgg nañ fi loolu ñuy xeex ak ñoom mu noonu xeex bu méttee métti métti xeex bu doy waar boo xam ni pour jëlee leen fa lu ne daj nañ ko léegi nag ñu am ci itam expérience xeex boo xam ni jot nañ ci am expérience bu baree bare bare bare bare lu tax ñu am ci expérience mooy dañoo fekk régime yëpp dañoo xeex Abdou juuf xeex Abdoulaye Wade xeex Macky sàll donc boo dajalee loolu yëpp presque dina def benn trente ans de xeex ñun trente ans xeex parce que bu ñuy xeex Abdou Diouf fii la ñu fekk ñi ngi ko doon xeex ci ay sound di génn di grève UNES euh, Union nationale des étudiants et élèves du Sénégal fii moi j'étais un dirigeant euh, du CM Sering Bassirou de Kaolack képp ku fa le premier dirigeant de grève de euh, l'UNES, Union nationale des élèves étudiants du Sénégal Je suis génne table yi je suis créé AG yi wax donc je suis noonu du dans le syndicalisme ci jamono Abdou Diouf xex ko bamou daanu ñu ñëwaat ci jamono Abdoulaye wad xex ko bamou daanu jamonoy Macky Sall aussi ñun ñu bok ci ñuko xex bamou daanu ñu sonal ko lool nak may ñuko dara donc expérience bobu ñu retenir moy euh gis nañ ni sénégalais mën na daané mais mënul fal problème mu fal la am souvent pour Sénégal problème fal parce que ki jëlé Senghor teg fi Abdou Diouf jël ab Abdou juuf teg fi Ablaye Wade jël Ablaye Wade teg fi Macky ba tey ñuy xeex Macky Sall mooy sénégalais bi bu fekkee ne am nga expérience bu baax a baax ci yoonu politique bi nga xam ni problème mu fal lañu am mais amuñu problème mu folli parce que bu folli jotee ñoom ñëpp ay folle ndoo mais dañ naan rek koo fi teg baax na léegi nag ka nga fay teg nag ñëw ak gàngooram ñëw ak équipe am ñëw ak ay dinosaures am ñëw ak ay nooxooram commencé nag ñuy paccoo alalu askan wi. mu doon lu doy waar loo xam c'est très très très compliqué donc di euh, fàttali sénégalais yi parce que ñun sénégalais lañu waxal ñun waxaluñ benn parti politique waxaluñ benn parti politique pour gars yi aussi euh, ñuy fàttali yenn nit yi nga xam ne dañu ma bëgg a accentuer ci benn parti politique bokkuma ci benn parti politique. je suis là pour le Sénégal sama parti politique le Sénégal la tudd les intérêts du Sénégal laay défendre cherché wu ma kenn koo xam dama koy wut lu ko neexal lu ko naqari képp koo xam ne taxaw nga. bugg a yàqal Sénégal wala ngay jéem a yàqal Sénégal wala nga am ay pexe yu mën a yàqal Sénégal wala nga ànd ak ay yàqkatu Sénégal ma xeex la donc il faut ñu chaque jour wax naa ko man bokkuma PDS bokkuma PS bokkuma PASTEF yoruma seen carte dégluwuma seen seen i conseil dégluwuma seen direction il faut mu leer quand même que yàgg naa ko wax xanaa du tey lañ may bëgg a ñëw étiqueté fenn moo laa man je suis leader leader politique la leader combattant la donc man amul kenn ko xamni ne benn leader bo xam dama lay deglu nga may wax li ma wara def dedet koku du mola koku du mola je suis un leader dama ko liggéeyee liggéey ba don leader ci ci ci ci rew mi donc kok sama combat la man ñepp dañ ma cey fekk ñu ci bari 99% dañ ma ci fekk donc man ma ci charte parti te benn nit nekkul ci parti mun ma wax li ma wara wax ak li ma wara def kooku il faut ngeen teel ko xam ngeen jéem ko génne ci seen ñenn ñi jéem ko génne seen xel yi ne moo laa mii di wax nee na bokkul ci benn parti yorul benn carte parti doxul ci benn charte parti doxul ci benn joxuñu parti xam nga loolu leer na voilà kon ñu avancé nga xam ni kon kii di xeex nii bokkul ci parti moom peuple am lay xeexal intérêt peuple am lay wër intérêt peuple moo ko intéressé li peuple am amal ko njëriñ rek lay wax lu amul lu njëriñ peuple am da koy xeex wala du ci wax nay leer voilà donc man lépp lu may wax sama dëkk moo tax may wax moo ma ñor keneen ñoruma donc di wax ni sama réew yàgg nañ am problème mu choisir njiit bu ñu gisee Ousmane Sonko ak ay démarche am mu mu doon jeune comme ñun formé woo comme ñun nekk ci mbedd mi comme ñun jàng comme ñun di lire comme ñun lu ñuy lire ñu bokk benn vision mu ñëw fekk ñu ci combat bi ñuy téye loxom muy wax parce que ñun ñoo doon organiser ay marche muy ñëw boobu xamaguñ ko ñun ñoo doon organiser ay euh, meeting wala ñun ñoo doon organiser ay manifestation muy ñëw on se rappelle très bien muy ñëw ànd ak ñaar ñetti garde corps mooy ay gars yi doon sol ay kaki ñu koy jox micro muy wax moom Ousmane Sonko ba tey mu doon li mu doon macha allah ñu kontaan loolu mu doon benn porte standard de cette révolution donc ñun ñëpp ay leader lañu ci combat social bi léegi mu subir ay injustice ñu bàyyi lu ñu jàppoon ñëw di ko xeexal pour xool ni ñu ko génnee ci injustice bi wala ñu combattre contre ñi koy teg injustice bi loolu moo boole suñu semaine yi suñu chemin yi croisé ba ñu bëri foog ni sax ñun moom lañ fi toogal fekk ñun toogaluñ ko fi ñoo bokk benn combat maintenant Sénégal dafa am loo xam ne dañ koo dund muy système muy système système la xeex xeexuñu nguur souvent da ngay gis nit yi naan foog Macky Sall jóge fi déedéet foog Abdoulaye Wade jóge fi ñun ñoo fi indi woon foog wàdd wadd foog wàdd wadd tous contre wàdd après gis nga lu ñu si biir tous contre wadd lañ fi indi woon bu ñu fiy jëlee Abdoulaye Wade gis nga lu ñu jural donc loolu la bañ mu amaat fi tous contre Macky Sall affaire ay Macky ay Ablaye système lañuy wax système ak gouvernement bokul dafa am système bu gouvernement bi di système Le système bi lañuy xex bu système bi rek gouvernement du fi amaat buy di continuer système bi donc ñun gouvernement système lañuy xex ngeen ko combat bi du rek jëlé fi Macky Sall kan loolu mooy combat bi jëlee fi Macky Sall moom c'est clair jëlee nañ ko fi moom ak gàngooram ak njabootam waaye loolu taxu ñoo jóg déedéet Macky Sall et le système le système nag ay pratique la ay pratique le système du ay nit ay pratique la féodal yu assassin mooy sàcc luubal alalu askan tëddee njabot ga fen askan wa Degue, dolen wax populisme rawale askan wi alalu askan wi toroxal askan wi système Abdou Diouf même système Abla def même système Macky même système donc affaire Averunit, du ay affaire nit système la comme ay pratique la yu fi xew tok dox doo liggéey sa loxo yu weex tàll doo def dara yor ay milliards jël jël ay tere tabax immeuble yi sax nga def sa njaboot jox leen ñu dem jàngi ji Europe jàngi ji Amérique jàngi ji Australie lijjël seen diplôme ñëw toroxal suñu université yi tëj ko loolu système la loolu ay nit dafa dépassé nit donc ñun jëlewuñ fi Macky Sall kese ne duñ fi teg keneen ku dul déedéet dañuy xeex képp ku bokk ci système bi képp ku bokk ci système bi képp ku yàgg fédéré ak système bi liggéey ak système bi nekk élément système bi nekk membre système bi formé wu ci école système bi dañ lay xeex dañ ne le séjour dans l'eau le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transformera ne le transformera pas en crocodile. On a beau vouloir changer Khalifa Sall, Khalifa Sall reste Khalifa Sall. On a beau vouloir changer ki nga euh, Diaz mais Barthélémy Diaz reste Barthélémy Diaz parce que c'est des des gens du système. On a beau changer Habib Sy, reste du système un élément du système que yow tout est pour changer ko pour changer etc. etc. Idriss on a beau changer Idriss Sec, mais Idriss Sec, retourne au galop kenn nous ko changer c'est des gens du système formés par le système configurés par le système des dinosaures du système des baobabs du système Bout direct moo fi nekk transformer baobab ba garabu di tax leen di buddi ñoom ñëpp sànni ca xaj ñun loolu mooy suñu combat parce que li ñu dal lii nii du dalaat dañoo sonn ci xeex bi te kenn du ñu yóbbuwaat ci continuer di xeex xeex bi déedéet xeex bi dañoo bugg mu dàkk dañoo bugg mu dàkk ñu commencé dund comme lu Europe di dundoo Amérique di dundoo Australie di dundoo ñun nangu sañuy yëf ay souverainiste lañ soxla ay nit yu gëm seen réew ay nit yoo xam ni amuñu complexe Babylone ay souverainiste ay nit yoo xam ne lu am ñu delloo ko ci suñu réew ay nationaliste lañu soxla ñooñu la ñuy liggéeyal ci ñooñu lañu nekk ci ñooñu lañu àndal donc benn élément système bi bu fi génnee dinañ la xeex loolu moom <laughs> moo la déclaré publiquement ak koo mun a doon dinañ la xeex ak koo àndal dinañ la xeex ñooñu dañu am gëm-gëm parce que nous boy du du du tay tok ci internet bi rek nit di ratatati la sa dara nga forcer mbir non boy, ci internet bi nga après tu dégages dans deux mois ken dootu la yow nga tu n'as tu n'es rien gouvernement xamu amo effet ci combat bi do ci dara ñun ñi ci trois régimes yow munoo fexe ba daanewaat ñi suba ñuy continuer waat di xeex ñun am nañ beneen liggéey bu dul xeex kese am nañ beneen liggéey bu dul xeex maa gën a mun a nekk fii rappeur la di def ay sound gars yi dañ daa xarab maa ngi gis ñëpp ngi génn ay sound mun naa génn ay sound heure bi bu ma fekkoon gars yi doxal nañ li ñu war a doxal wax nañ leen dëgg ñu doxal lañu war a doxal kon man heure bi tal naa leneen tal naa leneen mais kenn duñu engouffré encore ci ay erreur duñ ko nangul kenn baay kenn liggéeyu ko fi nday kenn liggéeyu ko fi duñ ko nangul kenn là n'est pas le li ñuy wax moom mooy combat bi lii la woon c'est jële fi système bi teg fi Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko feeñul ñu jël ki nga xamni ni Ousmane Sonko ño bokk ben paradigme ño bokk ben vision ño bokk ben objectif ño bokk ben paradigme ben vision ben objectif muy ku melni Jomay Fay bu len téla bëgg éliminer Jomay Fay bu len téla bëgg éliminer Jomay Fay Jomay oh, Fay kenn éliminer wu taxaw leen ci jomaay fay jomaay fay dañ koo sàcc jomaay fay dañ koo sàcc jomaay fay dañ koo sàcc dañoo jël ay parrainage am jox ko ñeneen jomaay fay amul lenn lu koy tere doon candidat day quatre mille yi ñuy wax ni dañ koy indi matal ko jomaay fay c'est le prototype de Ousmane Sonko nous wutuñu tous gars nous, nous ñu ngi dem feneen Ousmane Sonko comme choisir Ousmane Sonko je ne la wax Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui vous choisir n'importe qui <laughs> pour ñi nga nous ne amuñu pas déjà Nous commencé Ousmane Sonko nous. wax Ousmane Sonko du wax kenn ku bokk ci système bi man de wax loolu ñu ci bari ñoom xamuñu Ousmane Sonko Nous Nous avons nii ci internet bi savons xamuñu xamuñu jikkoom xamuñu ki mu doon xamuñu au fin fond de lui ña ngi koy commencé bugg a sax jox ay ñaanoo xam ne fo son Sonko ba jusqu'à l'extinction du soleil du leen joxañ ku ku bokk ci système bi kooku moom boo leen koy xaar fande di ngeen fande son ko Jomaay Fay la leen wax ngeen pare na ko Jomaay Fay ngi fi Jomaay Fay daanoogul jëlewuñ ko fi Jomaay Fay la Jomaay Fay amul keneen joxañ na leen de nee na leen Jomaay Fay dem leen ngeen pare na ji ko Jomaay Fay <laughs> lu tax ngeen bugg koo suul lan la Diomaye Faye def ngeen bëgg ko suul lan la Diomaye fay def ba ngeen bëgg ko suul Diomaye fay lañ wax moo fi nekk te moom la ñuy taxaw di ko résister taxaw di ko xeexal taxaw di ko waxal injustice bu mu subir ñu taxaw di ci xeex ne Diomaye Faye amul kenn ku ko war a mun a bu fekkee El Hadj Diouf moo matal ay onze mille Diomaye Faye pour matal 4000 c'est très facile donc amul lenn lu war a tax ñu mun éliminer. éliminer Diomaye Faye n'est-ce pas donc ñu gëm loolu focus sur la continuité moom mooy Ousmane Sonko Diomaye Faye ñun nous lañ jàpp pour l'instant déjà maintenant, comme nous l'avons leen ko ñu nekk ci lu ñu nekk ci combat bi ñu nekk ci combat bi bañ a attardé wu ci yenn ñaar ñetti nit yi di détail ay ku ñu Sonko wax ñu nangam dañuy kàcc rek Sonko yàgg na leen wax lu ñu deful <laughs> ñun ay sénégalais lañ comme ñoom xamante nañ bu baax sénégalais yi duur rek ñu ci bëri duur rek la ñuy def lu ñu Sonko wax lañuy def lu ñu Sonko joxoon dañuy duur rek duñ def dara duñ def dara. Sonko jàpp nañ ko fii tëj ko ci kaso yi ñaari fan lañ ko xeex taxaw lem ko dem ba mu ron ñu dem toog seen kër yi di lekk seen ceeb yi toog fu ñu toog rek ci net bi rek lañ ne Sénégal dara doo doo gis lu yëngu foofu Sénégal la ngi ne selaw selaw dañ leen làmm yi ci net bi rek lañ nekk di xuuxalaate dam la ngeen xuuxal Macky Sall kuñ leen kuñ ñu wax ne di ngeen di sóob rek sóob rek on se connaît on se ne daal doo leen def dara ku ñu wax kuñ ñu wax Sonko ngi nii ci ci ci injustice lañ ko jaayee doole au lieu ñu jox ko joxuñu ko këyitam ñu injustice defu leen tous kon may la ñu jàmm ak seen xuuxalaate yi da ngeen di dem xuuxal ku leen xamul Macky Sall non ku ñu wax la ñuy kii doo leen def tous dara doo leen ko def dara wax wax na leen junni wax defu leen ci tous may la ñu jàmm waay ñun xamante nañ su vous êtes de père sénégalais on est de père on est de mère sénégalais on se connaît on se connaît quoi cette affaire dof-dof lu ngeen di def nii du sóob doo leen defee dara dara dara doo leen ko def barke alxuraan. doo leen def dara lu leen Sonko lu lu mu fi wax du jeex du xaaj defu leen tous vous êtes des sénégalais on se connaît doo leen doo naar doo combattant xam nañ lu yomb ngay wut toog si nag bi di wax rek wax rek donc affaire bi Diomaye Faye focus sur Diomaye Faye ngeen bàyyi bu leen sax débat ak ñaar ñetti ay non ñun kii yu ñu joxoñ duñ def tous dañoo bëri wax làmmiñ rek duñ def dara bu doon loolu kon Ousmane Sonko du nekk ci kaso bi duñ def dara barke alquran bu do luñu wax dañ koy def lu Sonko wax dañ koy def kon Sonko du nek ci kasso bi du yewo ci kasso bobu legi faté nañ ko ma nga ci kasso ba jéemuñu sax jëmu def ben ben combat pour genn ko fa duñ def dara lamine lañu yor da ko mënal ay bandi internet lañ ah ñun kii ñu jox ñu joxoon ñu ay bandi internet duñ def tous dara duñ ko def tous duñ ko def té amuñu kàddu nak kenn amuñ mënuñu convaincre ñaari nit ñi lay wax loolu mënuñu convaincre ñaari nit kenn dégluwu leen defuñu live kenn dégluwu leen xamuñu leen seen koñ yi ñaar ñett ñu lay wax xoolal on on s'en fout vous êtes des sénégalais on se connaît dem leen libéré Sonko balaa bu dee lu mu leen wax ngeen di def moom Sonko amul droit nekk ci kaso bi compte max bi amul droit nekk ci kaso bi dem leen libéré ko ñaar ñett yi may wax fii laay wax de duñu tus duñu fekk nix wax yi mel nii moo tax Sonko dugg ci kaso bi kàcc rek la ñuy def boo ko laale boo ko laale tous laal na mu ci kaso bi sonko namm naa la la mujj ko namm naa la ko namm naa ba sonko nammatuñ ko sax bàyyi nañ ko foofu déggutoo sax sonko namm naa la kon may la ñu jàmm quoi ñun ñëpp Sénégal lañ juddoo ñoo fa màggandoo on se connaît voilà ñun waxuñu ñu dee ñi dee dañoo xeex pour dee ñun dañoo taasuñu suñu kër euh, rëbb ñu bataille pour indi ñu yow laa wax yow yow deewoo yaa ngi nii toog deewoo dara jot la yaa ngi nii toog kenn wëru la kenn rëbb la yaa ngi Dakaaru Njaay jal joob bind may ma jàmm ok waxuñu ñi dee yow lay wax yow da ngaa dee loola daal dañ taal sa kër dañ la attaqué doo laa miñ kese nga yor may ñu jàmm ok on continue donc les man seen waxu dof dof la yooyu moom man dugg dugguma man moom <laughs> man moom je suis sénégalais comme vous je vous connais ngeen di def ku leen topp ci seen i làmmiñ dee doo leen defee dara tous doo leen ko def làmmiñ bu rëy ngeen yor ñun xamante nañ quoi waxu leen ak benn australien wala belge Sénégal ngeen di xam naa leen bu baax duur rek ngeen di def yenn booy yi di soom yi duur rek Sonko ku ñu joxoñ joxoñ na leen ba tàyyi ci mbir yu bari defu leen ko duur rek ngeen di def voilà man man moom man ragalu ma leen joxu leen ma mburu joxu leen ma lekk joxu leen ma naan ragalu ma leen de duurkat yi laay wax duur rek la ñuy def duñ def dara ay bandi internet lañ soob rek kàcc rek bu doon ñoom la bu doon dëgg rek bu leen ñoom kese Sonko day day dee ci kaso bi D'où rek la def ay internet là. on avance parce que vrai combat voilà donc les gars affaire lui, on continue le combat avec avec qui nga sommes John John Faye Jomai lañu fi Sonko focus sur Jomai Faye nous focus sur Diomaye Faye nekk ci Jomai Faye ba le contraire nañ ci taxaw bu ñu suñu bob. buñ jël Jomaay Fay bàyyi ko Macky Sall Jomaay Fay am na droit dem ci élection yi am na droit dem ci élection yi Jomaay Fay mu ngi jouir de ses droits deux mille xaw ma quatre loolu cela cela ne veut rien dire dara absolument rien diisul mettiwut donc Jomaay Fay mun na dem ci élection yi voilà donc loolu ngeen jàpp ko

moo tax Badio Camara depuis deux ans wax naa leen ko mi ngi yor otoom yor garde corps am yor garde corps am yor otoom yor garde corps am GIGN mu armé fetalam mu koy protégé ba suñu jonn yàlla tey mu def sale boulot bi lii rek lañ ko santoon jeexal na pare na la mu lekk ëpp na six cent millions la mu lekk ëpp na six cent millions du tey donc Badio Camara bu ma leen di wax ne Macky Sall da ko teg fii pour Sonko loolu yàgg na ba ma leen di wax naan si otoom ci ginnaaw lay dugg benn eh, élément GIGN mooy toog ci kanam yor fetal bi loolu yàgg na donc Badio Camara dañ ko fi tegoon rek pour mu éliminer Ousmane Sonko illa l'a fait léegi nag respect à ses avocats à aux avocats Sonko neexul ba neexul mais comme ni koy waxee euh, ñoom ñi def seen liggéey seen liggéey ñu ngi koy def. malgré que un seen liggéey bi malgré que ñi ngi koy def mais Macky Sall day def yëfu bandi xam nga boo defee benn affaire ñu def le contraire bu la neexee nga bañ mais cela ne veut pas dire que euh, dafa am ay moo mooy li ma la wax ay marathoni euh, marathonier ay marathonier yu ñuy bëgg a tardel mais ñun nag on n'est pas des marathoniers bu dara nekkee soit Macky Sall pexeel Ousmane Sonko dañuy jox xeex ko wala ñu bàyyi avocat yi ñoom dañ koy xeex ñoom ñi ngi xeex seen xeex même bu Macky Sall éliminé Ousmane Sonko ñoom dañuy jóg di xeex léegi nag am ñu ñu bëgg a tardé la si waaye euh, Ousmane Sonko n'est pas euh, l'élimination de Ousmane Sonko n'est pas définitif nañ ko toppaat nañ ko nangam loolu c'est les avocats on respecte mais nous le peuple on n'est pas dans ça je parle du peuple sénégalais le peuple sénégalais nag tout le monde n'est pas de Pastef 80 vingt pour cent yi

du ay wuti avocat du wut ay magistrat du naaw du yuuxu du nekk ci net bi di bandi bandi loo ko ay buñ joxoñe ak nangam non xeex la <laughs> boo ko bëggul rek du dem xeex rek maa ko jiiñ maa ko wax te deux ans maa ngi koy dóor ci table bi kenn mënu ma dindi da ngay xëccoog man rek kàcc képp ku xëccoog man kàcc man kay fi ma ko teg daa wóor képp ku ma man kàcc yàgg naa ko wax képp ku xëccoog man kàcc dama ne ay élection bu amee fii Ousmane ko bokk xeex rek a koy def lu dul xeex mënu ko fa dugal du avocat du magistrat du cour suprême ak du constitution du ay dem ba ay cour dala eeg yooyu yépp laa la wax du dugal mag Ousmane ko ci élection yi xeex rek ko fay duggal mhm. xeex kese moo ko fay dugal buñ xeexul nag nañ waxi leneen mais vraiment dañu bëgg a tardeel ci ay affaire ay ñi ngi koy ñi ngi koy toppaat ñi ngi koy nangam yooyu moom am nañu am jotam nañ dem lijjanti ji ko ñun lijjanti wuñu loolu voilà ñun lijjanti wuñu loolu ñu am jot bi nañ dem ñun Jomaay Fay lañ gis pour l'instant moo fi nekk ma ah, Jomaay Fay moo fi nekk mais Ousmane Sonko moom génn nañ ko ci ba ma koy wax du tey génn nañ ko ci bu yàgg parce que processus bi dafa yàgg chaque jour ma ñëw wax ay mbir ay dof ñëw taxaw di werenteeg man mais maa am dëgg ci ñoom de xanaa seen waajur yi sax bu ñu leen gisoon war nañoo rus nee na xanaa yéen war ngeen noppi bu moo laa di wax ngeen noppi chaque jour mu am dëgg ci yéen wala gàcce du leen rey chaque jour mu am dëgg ci yéen ba mu ne Ousmane Sonko génn nañ turam ci fichier électoral bi am ñu ñëw taxaw di werante kii nee na génn ñu ko ci kii nee na ñaa nga naa nga ma dama toog di ree ma ne <laughs> ñi xamuñu fu génn leen xeex génn leen kii bi ci liste électoral fichier électoral am anu ko génnee ba léegi duggaluñ ko des fois ñu dem déglu benn laay mu mu dóor loon ay rêve gëlëm loo leen dóor ay rêve lu ñu bëgg a dégg xam nga sénégalais rek daal bu koy takkal ay maamoom tuq si ngalam yàlla boo yor sa tuq si ngalam rek xalam seen maam ñi yuuxu waa ñu naan kii moo sa maama rey gaynde gi te ay kàcc la ñoom xam nañu maamam rayul gaynde sa maama rey gaynde gi ñu yuuxu <laughs> daanu en transe ah sa sa maama yan woon ñay ba dafa am ay <laughs> ñoo xam ne dangay dem foofu live sa maama yor gaynde ga rey gaynde gi sa maama non ma du ma griyo du ma griyo kenn je suis pour le peuple rien que pour le peuple avec le peuple et pour le peuple du ma giriwu kenn donc man bu ñëwee xàq bil xàq laa lay wax dem sama yoon te damay am dëgg ci yow par force force force kenn mënu ko dindi ma ne dindi lañ ko ci fichier électoral ba ñooy dof dof moo indi lii yëpp boo leen ko xeexul du dem seule la lutte libère xeex rek mooy dugal Ousmane ko ba suñ jonn yàlla tey maa am dëgg ci ñoom mais na gàcce du leen rey am na ñoo xam ne du leen rey <laughs> chaque jour dañu ñëw wér teg man bu ñu demee gàcce rey leen mais dañuy dañu mel ni ñu fàtte dañuy dof dof lu di mel ni ku fàtte fekk wax naa leen ko de wax naa leen bu yàgg ne leen <laughs> sa waay kii xeex rek génne nañ ko ci liste électorale ya mu di leen a muus te avocat yi boobu ba léegi dóor nañ ba dee mais génne nañ ko ci lu ne avocat yi def nañ ko mais génn nañ ko ci kon kon kay affaire bi du ay avocat ma ne leen dugal nañ leen ci marathon judiciaire boo xam ne doo leen fa am ndam doo leen fa am ndam di ko yuuxu ci kaw doo leen fa am ndam ba muy riir ci miir yi ana marathon judiciaire bi ban ndam ngeen ci am ba ndam fii benn ndam moo fi yàgg am mooy xeex benn ndam la sénégalais yi musa am muy xeex xeex nag boo gis dina am ñu dee moom dina am ñu gaañu dina am ñu tëj dina am ñu ñuy rëbb dina am ñu daw loolu moom mooy xeex bu ne xeex boo gis nag am na loolu kan mooy xeex ne kan mooy xeex ak nit ne waruma fay gaañu kan mooy xeex ne waruma takk suuf kan mooy xeex ne ma non munuñu ma cee rey xeex boo gis déqaleeg beneen boo gis guerre mondiale yeeg geneen boo gis li ma leen musa wax moo musa am kenn dindiwu ko ma ne leen marathon judiciaire doo leen ci am ndam amu leen ci ndam ban ndam il leen di nalawal leen Il ba fin fin fin ñu éliminer ko boo leen doon daw ba ginnaawaati suba doo leen am ndam ci judiciaire bi man samay wax Il samay wax ay ay de samay wax ay kenn dindi voilà pour l'intérêt du projet comme l'a dit Abbas hein on continue avec Faye les gars défendre ci Diomaye fay taxaw leen ngeen défendre le candidat Diomaye fay la candidat Diomaye fay est le prototype de Ousmane Sonko c'est le candidat que Diomaye Faye moom la ñu Ousmane Sonko joxañ bu ñu ko bàyyi mu sedd bu ñu ko sànni bu ñu ko beddi le candidat Diomaye fay mu ngi jouir de ses droits te dafa war a dem ci élection yi fépp fi nga xam ni Anta Babacar Ngom dugg na fa Diomaye fay daf fay dugg fépp foo xam ni maître El Hadj Diouf dugg na fa Diomaye Faye daf fay dugg te El Hadj Diouf lu mu manqué loon mu ëpp fuuf mi ngi laaloon ay treize mille te mujj na dugg donc képp koo xam ni yaa ngi défendre Ousmane Sonko gëm Ousmane Sonko jàpp la Ousmane Sonko wax mu mu fiy joxañ Diomaye Faye la joxañ Diomaye Faye la ñu joxañ mooy numéro cent onze moo fi nekk jógee gu fi kenn du ko fi rey ci suñu kanam kenn du ko fi suul ci suñu kanam Ousmane Sonko Diomaye fay la joxañ ñi ngi ci Faye euh, gouvernement bi di la candidature de Diomaye Faye est sans équivoque amul lenn lu ci tilim wala lu Faye partira aux élections 2024 il sera là-bas pour pour représenter PASTEF pour représenter l'ex-PASTEF comme vous voulez le dire comme vous aimeriez le dire pour représenter Ousmane Zongo, pour représenter le peuple donc nous on est avec Diomaye Faye on est avec Diomaye Faye ci ñi ngi ci Diomaye fay ñi ngi ànd ak Diomaye Faye voilà loolu lañ jàpp donc mais Macky Sall moo warul lekk koo xam ne moo war a choisir naan day teg Anta Babacar Ngom ak nangam ak nangam ñun peuple bi ban njëriñ lañ am bu dee dañuy dem ba toog ba nga xam ne lépp forfaiture yëpp dañ koy def suñu kanam facilement dañoo war a bañ loolu parce que Diomaye parce que Anta Babacar Ngom fiisu Macky Sall la rek dafa war a dem léegi ko dul fiisu Macky Sall xaritu jo xaritu Ousmane warul dem non voilà waaw Diomaye bokk Diomaye Faye day bokk Diomaye Faye day bokk voilà Diomaye Faye day bokk te kenn mënu ko téye kenn ñu ngi artu gouvernement bi di leen wax ni peuple bi nalawuñu ñu ngi taxaw Diomaye Faye day dem incha allah Diomaye Faye day dem léegi nag Anta Babacar Ngom nee naa leen rëbb dëmm bi daf leen ndànk rek xam nga wax naa leen Anta Babacar Ngom parce que instant dama pare rëbb dëmm parce que moom day dem moom waxoon naa leen bu yàgg day dem du tey de am na ñoo xam ni fa ñi déglu samay laay nañ fàttali ñi dégluwul samay laay wala ñu jot déglu samay laay wala ñuy fàtte sama laay xamal leen ni man maa wax ni Anta Babacar Ngom day dem ci élection yi boobu du tey te Anta Babacar Ngom matalul sax parrainage te bu ma la wax ni ma Anta Babacar Ngom kenn xalaatu ko man maa leen ko wax yàgg na du tey de du ma jinne du ma malaaka du ma rab bu ma leen di wax ne Anta Babacar Ngom dina dem en 2019 damay fay éligible en 2019 Anta Babacar Ngom bokkoon na ci les conseillers les conseillères de de Macky Sall en 2019 Anta Babacar Ngom doon na ànd ak Macky Sall ci avion yi gaa yi ñoom tey lañ xam Anta Babacar Ngom mii. anta babacar ngom dina len wax bu baax ci reub dëmm bi wala monsieur jack yéen a ngi fàttaliku bu ma leen di wax waxu jack gendarme ba mu demoon ji imam Alioune Badara Ndaw raylu ko ah Diak mi newoon section de recherche brigade de recherche yéen a ngi fàttaliku loolu jack drogue bu don rawale bata drogue ya donc loolu waxna len ko bu yag mais dinañ ci gëna ñëwaat parce que def naa rëbb demi ba ba teg bu Anta Babacar Ngom moom bouclé naa ko parce que xam naa ne moom moom conseil constitutionnel du ko arrêté moo tax moom bosam pare na bosu Amadou Ba pare na bosu ñaar ñooñu moom moom mat na sëkk rëbb dëmm yooyu ñaar yooyu mat na sëkk rëbb dëmm dinañ ñëwaat incha allah ci nu mu tàng jër jër jër jër jër jër après deuxième segg conseil constitutionnel bi incha allah dina ñëw ci rëbb dëmm bi bu soobee yàlla mais Anta Babacar Ngom Lama ma ca xam bari na lol sax wa dinaa len wax juddum crisis scolaire am famu jaar ba mu ñewé politique famu fa dugg ak ay akem ak ay défaut ak lamuy def ak tout mais jàpp leen ni candidat fantôme la candidat bi nga xam euh, tam Babacar ndjay koku candidat fantôme la docteur bo Babacar ndjay candidat fantôme la voilà momit jamono ji ci mom la nek maa ngi ci rëbb dëmu Babacar Ndiaye boobu candidat fantôme boobu voilà dem naa ba jor ay documents yoo xam ni c'est trop vrai ci affaire Covid bi dóor na ci ay jox nañ ko ci ay millions presque lu jege milliards dóor na ko ci voilà moom tamit élément wu Macky Sall la dañoo sàcc xam nga gars yi nuñ def gars yi boo lañ joxee clé conseil na xam nga nuñ def dañoo tibb ay parrainage daaw Daouda Ndiaye dañoo tëbb ay parrainage yu ki nga xam ne moom mooy Jomaay euh, fay sotti ko ci partagé ko entre Daouda Ndiaye ak ki nga xam ne moom mooy Anta Babacar Ngom yi copier ko ci euh, clé wu ki nga xam ne moom mooy Jomaay fay loolu lañ def pour ñu ko comprendre ñoom ñu ngi lañ koy wax dama ne docteur Ndiaye Daouda Ndiaye ak Anta Babacar Ngom ay parrainage jomay Fay lañ yor loolu conseil constitutionnel moko def dafa copier fi coller ko feulé jël yu Jomaay Fay copier ko coller ko ak El Hadj Diouf ñoom def parce que dañuy bëgg choisir seen candidat loolu nak peuple bi du nangu man chaque jour je parle au nom du peuple man buma ñëw rek dama naan peuple bi du nangu loolu lañu def légui nak souvent il faut ñuy dankafu gouvernement bi bañ leen a woon ni yéen li ngeen bëgg a def da ngeen koy def mu yomb noonu loolu nag laay xaw a des fois jàppante ak yenn sénégalais mais xam nga des fois duñ comprendre samay discours parce que damay may nopp ci kaw parce que dañ leen a may jàmm ko ñoom dañ leen a may jàmm xam na lay def ñi ngi def lu leen neex peuple bi di au lieu ñu ñafante ñoom wala ñu menacer leen déedéet dañ ko fay bàyyi naan non kii bu ñu joxañee ñekkee bu ñu joxañee kee C'est moo may des fois parce que duñu xam ni ñi ngi gën am ñi ngi am ñi ngi avancer je sais pas si je euh, euh, je me fais comprendre c'est-à-dire peuple bi dañuy ñëw il ak benn ne qu'il. la gars yi ne ko ci ci ñu ko fa ne dañuy candidat vous leen candidat après ngeen daw di indiwaat keneen loolu day tax ñoom ñu ñime ñu te ñu bëri xamuñu ni loolu baaxul sax di ko def c'est-à-dire communication bu ñenn ñi di def nii xamuñu sax ni sa à dire ñi ngi wane ni ñoom xeexatuñ dara ñoom maanaam daal léegi daal dañoo yooy dañoo yooy dañoo yoom quoi léegi ay góor jigéen lañ léegi daal ku ñu indi rek gouvernement bi jàpp sànni fële ñu dem wutiwaat keneen balaa waxtu bi jot ña ñu joxoñ ña ñu wax. mais gouvernement bi tam tànc leen ñooñu rëccaguñ de ñi ngeen di wax di commencé leen di leen wili di leen tayle ñooñu rëccaguñ conseil constitutionnel day ñëwaat bu paree lii dañuy seggaat encore dañuy seggaat léegi yow yaa ngi commencé yow nga indi sonko ñu def lu ñuy def nga bàyyi fa sonko daw indi jomaay au lieu nga dëggal jomaay ji jomaay dëggal ko ba ñu ragal menacé leen doo ko def ngay ngay yolom yolom yi ñu dóor jomaay nga dawaat mu jiwaat keneen mais sa waay yow est-ce que xam nga li ngay liggéey yow taxawal dëggal sa boppu teel ngaa joxañ keneen ki lay joxoñal sax joxoñagul nga commencé naan man moom laay dégg lu ma joxoñ tagal na la kii liggéeyal ci lim la jox ba pare balaa ngaa wax leneen je sais pas si je me fais comprendre liggéeyal ci lim la jox nga dëggal lim la jox nga forcer lim la jox nga xeex ba dëggal lim la jox balaa ngaa jël keneen parce que war waruñu mun a dem saa yi ñu yanoo ak mbër mu yuux rek ñu daw sànni mbër ma dem wutiwaat keneen te mi ngi avancé di ñëw du lu baax li ngeen commencé joxe ñey nit yi di leen sacrifier du lu baax ki war a joxoñ joxoñagu leen noppi leen lii la leen wax dëggal leen lu mu leen wax jafandu leen ci lim leen wax xeex leen ci li leen wax taxaw leen ci li leen wax faru leen ci li leen wax yokk leen fulla ci li leen wax yokk leen fayda ci li leen wax wane leen ni kenn duñ yenul kenn jox ñu ko ñu ñu ko noonu Anta Babacar Ngom moom war naa mun a gën nday Jomaay Fay ba Anta Babacar Ngom war a mun a dem Jomaay Fay demul des fois ni ñuy communiquer baaxul il faut ñu won Macky Sall ni ñun am nañ fulla am nañ fayda Diomaye Faye dara du ko tere dem mais waruñu mën a sànni mbër yi ñuy indi saa yu Macky Sall yuuxoo ñu sànni mbër ma wëri keneen balaa moo jeex mu tey la ñëpp mu tënk ñëpp dañ koy xamal ni ñun dawuñu dal tuuñu ginnaaw Macky Sall Diomaye Faye est éligible Diomaye Faye est éligible ful lay jaay Dakar maa ma ñam jeexal ko 4.000 sax du dara boko laaji 4000 mën na indi 10000 20.000, jomay fay amul luko mëna téré baña dem dara mënul téré jomay fay baña dem sauf ñàkk fayda sauf wane ñàkk fayda sauf woné ni yow du dara ci yow ko ku indi rek mu yobbu loolu dañ koy lank man anduma ci genre discours bobu anduma ci ma ci discours boobu parce que Macky Sall du koo xam ne danga koy won ni yow daal affaire bi tollu la fenn muy ñëw Macky Sall mooy nit boo xam ni booy daw day yegg si nekkul koo xam ne booy daw day daw de déedéet ku ma gën a ragal mooy kuy kuy jaayanteeg moom ku ma gën a ragal mooy koo xam ni ragalul dee quoi danga won ni man ma dee voilà c'est bien li leader Pastef yi démystifié nañ ñi nga xam ne ñooy conseil constitutionnel wane nañ lépp gis ngeen ko léegi nañ dëggal suñu bopp pourquoi ñuy bëgg a wax waxaat leneen Sonko Diomaye Faye la ñuy joxoñ lan mooy kër Sonko comme ñu joxoñ ñu dem fa mais joxoñ Diomaye Faye lan la joxoñ dëggalal Diomaye Faye balaa nga wax leneen boo dëggalul Diomaye Faye dañuy xam ni kon yow da ngay sóob Sonko lu mu la wax lu mu la joxoñ doo ko def parce que Diomaye Faye la la joxoñ mooy doomu ndeyam ñu bokk ñu mel ni Ousseynou ak Assane Diomaye Faye am respect opération rëbb dëmm bu set wecc mu joxañ la kooku mu taxawal foofu pourquoi dem wëri keneen kum ñu joxañ xanaa gisoo kum la joxañ wala dangaa éliminer kum la joxañ nii déjà danga ko nga ko quoi yow yow conséquence na sax éliminer guñ ko yow éliminer nga ko ci sa xel quoi bay wëri bay xaar keneen kum la joxañaat xanaa kum la joxañaat Diomaye d'abord et Diomaye day dem sama gars yi Diomaye day dem barke alxuraan jomaay day dem billaahi jomaay day dem te Macky Sall na xam ni jomaay day dem day dem ci élection yi jomaay kenn daanewu ko ci justice jomaay kenn condamné gu ko kenn condamné gu ko kenn daanewu ko li nga xam ne moom la am muy euh, euh, kii de justice am dafa vierge dafa vierge

Jomai, vierge kenn jugé ko kenn atte ko vierge casier judiciaire am bu vierge la yor bind ñu ci fukki dërëm musul am problème musuñu ko atte donc Diomaye Faye day dem ci élection yi day dem ci élection yi dara mënu ko téye il a plus plus de 4 millions de réserves Jomai Faye day dem ci élection yi amul fenn lu koy tere dem loolu laa gëm ni lañu ñu war a compacter dajaloo suñu biir booloo def benn globe bu compact kenn bañ ñoo dugg ñu bañ a largué Diomaye Faye may ko Macky Sall ñu jël taxaw doon bouclier humain ne Diomaye Faye day dem ñu am 13000 la ngi matal ñi am 14000 la ngi matal ñi ñi war a matal yépp Diomaye Faye ci gën a tuuti ay 4000 la am 4000 mais yow 4000 sa koñ rek mën na ko matal sa koñ sax mën na matal 4000 Diomaye Faye yor na 4 ku fi jaay parrainage Diomaye Faye moo lay may di la sarax donc day dem loolu fu ñu xamal ko Macky Sall xaaruñu fenn Diomaye Faye la ñu jox Macky Diomaye day dem ci élection yi par force doole mbaam day leer day leer de li si des nag mooy c'est nous dans nous ñoo bokk benn combat li ngeen di bax bax bax yépp dama leen a soxla bëgg leen fonk leen parce que ñun 2024 dañu war a gisante ki ngeen di gis ci internet bi nii nit la de chair et os ma am nday am baay ñu nekk Sénégal ma yor samay këyit war a voyager ma lànk ñu ne ma non munoo fee bouger wala boo ñëwee ñu seyal la boo ñëwee ñu nangam nangam ragaluma kaso wax naa ko yàgg naa ko wax parce que ci yàgg naa dugg ci kaso yi façon aw kaso bu ne dugg naa fa joué naa concert ci kaso bu ne ay nit a fa nekk kenn duñu du dara démystifié naa ko man kon man du kaso laa ragal démystifié naa ko depuis 2008 2007 2008 maa ngi ci kaso yi di dugg di génn di dugg di génn di fa dugal portable ak yàmbaa rek laa fa dugal donc man kaso ragaluma ko nit dof mooy dugg kaso génn di wax mais Khalifa sàll mii ay ay quatre ans la def ci kaso est-ce que dee na ku rek koo gën a ragal gisuma ko Barthélemy Diaz def na ay at ci kaso bi ñaata yoon et après kan nga fi gis mu dugg ci kaso bi ñëw dee ni kaso du dara du tuus kenn ragalu ko fi li ma ragal kay mooy ñu tëj sama gémmiñ tëj sama gémmiñ parce que bu ñu la dugalee kaso tëj nañ sa gémmiñ loolu laa bañ sama gémmiñ ngir abarkeel mi ngi wax loolu rek lay bañ ku tej sama gémmiñ mais buñu ñu kaaju duggal ñu la ngay eggali live ma ñew ñu duggal ma barke alxuraan bu ma Macky Sall ne bo ñewé ma duggal la nga yeggali live ma yeggali live kon man faalu ma kasso ndax ñeuf tappit yaa ngi fa di dugg di genn gérée yaa fa di dugg di genn du dara lu paquetage dambalo yew lek nan lepp dafa neex dama lay wax nak dafa neex kóol yaa nga fa gars yi di dóor di mbipp kóol yaa nga fa di daw gars yi ñu ngi puus kóol yi mi ngi dugg gars yi lekk ci ceeb bi dañ leen indil ay ceeb am na ñoo xam ne ñaari bool lañ leen di indil borom ñaari jabar yi ñaari bool ñu bind ci seen tur ñu lekk ba suur li ngay lekk lañuy lekk di yor xaalis sangu solu waaye boo duggee kaso booy gars yi ñu man man kaso laa doon wutee xaalis bu ma xonetoon kaso laa dem barke alxuraan buñ ma woolee gars yi nii gars yi dóor ay ceen ceen or taxaw sol nii lañuy ñuy soloo génn njaab yee eh, mola dóor ñu toog ni waxtaan yee eh, booy fils jox ma fa dara ah xaar ma boole ak boutiquier bi barke rasulaay ma dem ñu jox ma benn cinq mille ma mbaq sama poos dem di reme di di di charo requin requin <laughs> may na ma fa cinq mille di charo ma juuf may na ma fa cinq mille ci biir jeel bi di saaraat sama euh, kii waaye sama néega bi tamit defar euh, tamit defar tableau yi jaay jaay na ay tableau yat ma yat ma jóob jaay na ay tablo may ma xaalis ci jeel bi ma jógee ma nekk ci mbedd bi di xonet di ñëw ci jeel bi di jëli xaalis dugg ci biir jeel bi di fa jël mani waaye jox ma lii waaye jox ma laa jox ma laa bu ma xonetee donc <laughs> donc donc ñun kaso du démystifier nañ ko donc mais problème bi moom mooy ñu tëj suñu gémmiñ la ñuy bañ ñu tëj suñu gémmiñ parce que suñu gémmiñ gi mi ngi wax am na fu muy yegg donc kaso du tus ragaluñ loolu problème bi mooy Macky Sall gars yi ragaluñ ko foog mu xam ne ragaluñ ko foog mu xam ne baayam nenul ci nenul ci réew mi foog mu xam ne ndayam moomul Sénégal mënuñu fi choisiral ay candidats yu ko neex pour ñu dem ci élection yi loolu du am loolu du exister loolu na ko xam na ñëpp taxaw ñu booloo nekk benn ànd de ko mën a leen yéen yéen da ngeen intéressant parce que man dama leen soxla des fois nag seen communication moo may aaluloo des fois ngeen di communiquer damay mer mais nag ñoo dëkk ñoo bokk benn kër des dañuy dañuy dañuy jàppante parce que man xam naa ñi ñuy xeexal ay dëmm lañ donc am na yenn discours yi boo ko yoree dañ dañ lay ñime dañ ne bukki bu yabee gaynde ci doxin bala bukki bu yabee gaynde rek ci doxin bala mais màggitum gaynde moo mun waxambaane bukki màggitum gaynde moo mun waxambaane bukki mais bukki bu demee ba yab gaynde ca doxin bala mooy day xool gaynde xam ne kii lafañ la wala day xool gaynde xam ne daa feebar li lappax lappaxi mu songu ko mais gaynde gu wér daf ku taxaw bukki du ko songu du ko songu Donc, les gens qui ont un benn discours bi gars yi dañuy ñime saa yi indee suñu candidat Maki bëgg a ñëw sànjaafu bu max mu daanu mu jàllax nga indiwaat mu jàllax mais bu vous avez un yow candidat, vous avez un mu candidat. la foog nag bu jàllaxee nga indi leneen ne ko bii nag moom bakkan laa ci teg eh, mu ne ko bii bakkan laa ci teg de bii moom doo ko fi jàllaxee noonu casier judiciaire vierge la yor musuñu ko attee te day matal affaire yi kii Sénégal yëpp am seen espoir ci moom da koy matal te dañuy dem dara duñu téye boo ko wanee day xam ne ah kii kat am na fulla ci affaire yi mais bu fekkee ni lu yëngu rek nga dam yanu keneen kee la ñuy xaar kee la ñuy xaar kee bu yàggee balaa ngaa yegg sax mu jeexal ñëpp donc am na ay yenn candidats sax yoo xam ne waruñu leen tayle nii di teel a tayle teel a tayle lu kon luñ doon nëbb amatul sens luñ doon nëbb amatul sens saa yi ñu waxee stratégie nga ngeen commencé di wax candidat bii nii Sonko ko yónni candidat bii nii moom kay budul yii nii bii la bii yaa ngi joxoñ waaja commencé nga joxoñ waaja te dem pareegul conseil constitutionnel dëmm yëpp pareeguñu yaa ngi commencé tay la waaja parce que injustice la ñuy teg gars yi forfaiture xeexoo ko nga tay la waaja ñu tegaat ko forfaiture doo xeex bu boobaa waaja daal ah kon ñii moom lu ma teg lu ma teg seen waaja rek lu ma teg seen nit rek ku ñu indi ma teg la dara du ñu xeex kon kay am naa yoon bi yaatu na léegi bàyyi ku ñu wax rek ma génne ko ma jéem xool nu ma ko sàkk sàkkale ay sikki sàkk fenal ko sosal ko génne ko ci foog ñuy dëggal suñu jàmbaar yi foog ñuy jëmbal suñu jàmbaar yi waaw loolu rek lañuy faral nag des fois di jàppante suñu biir du ci ñàkk fay foog ñu jëmbal suñu jàmbaar yi daal wala ni ñun am nañ la am nañ fayda ñiñ leen di présenté ñu loyal la ñu légal lañ bu ñu tollee ci leneen nag ñu wax leneen mais fu nekk nii jomaay fay moo fi nekk ci jomaay fay la ñu wax ci jomaay fay la ñu focus jomaay fay la ñuy poussé jomaay fay day dem incha allah lu mu yor ci réserve kenn xamul lu mu doy te la ñu defoon jël ci ay parrainage am sàcc ko jël parenage yeneen yi sottil ko loolu dootu fa amati parce que déclenché nañ affaire bu wane nañ ni Macky Sall dafa sàcc conseil constitutionnel du ñu ay dëmm lañ du ñu nit ay sàcc lañ paay ñàkk jom lañ paay ñàkk fayda et ki nga xam ne moom mooy Badio Camara on t'a à l'œil on t'a à l'œil barke rasul ñi ngi sa kaw yow ñi ngi sa kaw yow Badio Camara ñun ñi ngi sa kaw yow doo yàlla doo dëmm doo jinne doo rab fii nga dëkk ak sénégalais boo yaakaaree ni da nga def seefu dëmm yooyu raw di nga xam ne ñun nga fiy fekk ñun le peuple sénégalais très déterminé nga fiy fekk doo fi jàllee noonu say say imbécibilités yi ngay def noonu doome xaram bu bon bi dama ne yow Badio Camara Badio Camara doo romb nday nii doo fi tag ay dil ba génn fi waa Pastef fi demee noonu doo fi am loolu nañ la ko xamal nga leer loolu nay leer na ko def sa bopp bi vrai xaj bu dee nga yow sàcckat bi paa bu day ni yow léegi nga dee doomu xaram bi amoo lenn looy def lu dul ay mafia ki linja ndax xaalis yow yaa bon yaa yées yow yaay yow xaj yow doo nitu dara mais on t'a à l'œil boo yaakaaree mën nga fi rëccee noonu dina leer singe que tu es c'est les sept singes ces imbéciles là yàgg nañ ko wax les set singes saa yu dëkk bi tàkkee ñoo ko taal doome xaram yi bàyyi ñàkk ndayam fayda ak maire yi yi booloo seen mbootaay mbootaayu cagga ji les sept singes duñ leen bàyyi noonu duñ leen bàyyi noonu na leen leer doo leen nitu dara dama xaram yi waaye ñàpp ndeyam ñàq nday fayda yi doomu biddu xaram yi ngeen doon ku tumbaa saan yi les sept singes dooma xaj yi ngi leen di dinañ daqaar seen maam laa wax dinañ ñàpp seen maam ba ngeen polombe ngeen fogg ni ñun sañu cocktail molotov yi bàyyi nañ ko dinañ cocktail molotov seen nday ba ngeen nekk nit yéen conseil constitutionnel dama xaraam yi leen nitu dara donc gars yi on reste focus amul bàyyi de amul ñàkk fayda amul teel a bàyyi amul ànd ak suñu mbër di ko largué dañuy dëggal suñu mbër yi jàmmarloog ñoom bàyyi wuñ leen benn yoon nay leer ñoom nañ ko xam voilà tous ensemble Mbolo moy doole Bolo nek ben xex jëmmal liñ bëgg mu sorté jamm inshallah. donc Diomaye Faye day dem ci élection yi inshallah. Motax l'espoir est permis ñu nangul ñi nga xamni ñi ngi manifester sen colère sen métit, sen frustration ànd ànd lay firi bu leen yaakaar ni ñiy frustré wu nii mer dañoo xàddi déedéet bu leen jaawale kuy manifester frustration am meram naqaram ak ku xàddi ñi ñu bokkal dañoo bëgg Ousmane Sonko dañoo fonk Ousmane Sonko dañoo naw Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa sori ci ñoom donc bu fekkee dañoo pexeel Ousmane Sonko ci ay fen ay kàcc ay naxasa xandañ jënd justice ak paay ñàkk ndaayam fayda yi nekk conseil constitutionnel ba jële fi bu fi jëlee Ousmane Sonko mais yoon la ñoom ñu am lu leen metti sa waa ji sëriñ ba ba muy dem am na sëriñ ba muy dem daa bind xaatim ca guddi ga ba mu waree faatu na leen sant leen ma gërëm leen sant leen yàlla gërëm leen yàlla maa ngi fiy jóge waaye maa nga ca àjjana taalibe yi ñëw am ñuy yuuxu di jooy am ñu jël lettre ba génne liir loolu am ñuy am ñuy jibile mais teewul am na ñuy jooy ndeem sëñ ba xamal na leen ni dama fiy jóge bind naa bàyyi fi dama fiy jóge waaye ajjana laa jëm dinaa toog ak jotaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa toog ak jotaay yàlla ji de nangam naa nangam ak nangam wax lépp mais teewul am na ñuy continuer di jooy donc c'est pas que ñiy ree dañ naan ñiy jooy waru leen jooy non dañuy manifester seen colère dañuy manifester seen naqar seen frustration seen amertume di manifester wu ci injustice bi am loolu il faut ngeen nangul leen ko c'est pas parce que dañoo démissionné non gars yi bu leen xaddi déedéet xaddi wuñ de dañoo dañoo am naqar di ko jooy il faut ngeen comprendre leen dañu am naqar di ko jooy dañu am lu leen metti mais bu ñu paree ba fompu seen i rongañ ba seen naqar wàcc mais dañuy continuer dañuy ñoom dañuy ñëwaat suivre rang yi donc du ñu ñoo xam ne dañ leen di xalaat yow da nga nekk xaddi non xaddiwuñu ñoom xaddiwuñu donc ku nekk ak état bam ndem Sonko bañ ko ko waxee ay reer la ko def waaw oui ay ree ko def <laughs> ne leen gars yi mënuñu mënuñu suul kar mënuñu suul kar suul kër rek du ko tere feeñ jant bi kenn du ko kenn du ko nëbb kenn mënul nëbb jant loolu leen wax ne leen dem leen la combat continue waaye am na ñu ko wax am na ñu contante si bi mais am na ñoo xam ba léegi ñu ngi jooy nañ leen nangul seen jooy yi leen dóor duñ leen saaga nañ leen nangul seen jooy yi bu ñu paree ba pare ah gars yi c'est vrai nag am na lu leen kii ñun ñëpp am na lu ñu metti mais <laughs> kër sax kër bu fa nit dee am na kuy jooy am na ku yuuxu am na ku dul jooy est-ce que ku jooyul ki dafa amul lu ko metti déedéet kër seeni waajur génn àdduna mais am na ñoo xam dañuy yuuxu waay waay sama daa woo am na koo xam dañuy toog <laughs> am na koo xam day toog nii mais mbaa ñu wax ni kon ku jooyul ki moom amul lu ko metti xëy na sax moo gën a metti la ñuy jooy ku nekk ni ngay manifester sa frustration ku nekk ni ngay manifester sa mère ku nekk ni ngay manifester mais bul gis ki nit ki di joy rek nga non dafa xadi dafa bàyyi dafa non bàyyi ko mu joy bàyyi ko mu génne lu metti ci mom bàyyi ko mu génne mu manifester nakaram ci injustice bu tek teg leaderam ki nga xamni de ko jox yaakaram bëgg-bëggam mais après bu lepp jeexee dañ leen xamal ne le projet continue le projet continue le combat continue li fi nekkoon démb ba tey mi ngi fi dañ koy jëmmal dañ koy dëggal mooy jële fi système bi teg fi lanti système dañ fi jële système bi teg fi lanti système waaw am na ñu am lu leen metti dañuy ànd ak ñoom ndànk ndànk rek di di xar di waxtaan ak ñoom am na ndaw soo xam ne lu ma wax démb na sama carte bi Sonko laa ko dencal non jeex na nee na mais guddi gi dañoo nekk di waxtaan moo jël sama temps bi guddi gi yëpp ndeysaan du benn du ñaar du ñett envoyé mais jeex na man Sonko laa euh, euh, euh. man non dal dal dama ko dalal dalal ne ko mais Sonko suñu borom subhaanahu wa taala sax dama ko yóbbu ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sax ba mu bëggee. mission bi mag ci jaam yi ay yonent la yónnee mu ne ma ma ne ko waaw ñaata yonent la yónni balaa moo jot ci yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata la yónni ñaata livre la fi wàcce te livre yooyu yëpp ay livre suñu borom la di wax ak askan mais tey projet boobu moo nekk ni moom ngay dund moom laay dund donc Ousmane Sonko projet bu mu porté projet boobu la ñuy yóbbu di ko teg ba muy feeñ ba mel jant tim ñep jàppal ni mi ngi fi donc nañu suivre pas à pas le projet mais yow bo bayé projet bi parce que Ousmane mo taxaw feulé Ousmane mi ngi and ak ñun Ousmane taxaw dafa and ak ñun. am na prophète yu fi Il y a prophète yu fi fekkante am na ay prophète yu fi fekkante am na prophète yu fi fekkantewul donc Ousmane mi ngi ak ñun ba léegi mi ci terrain ba léegi mi ngi ak ñun ba léegi même idéologie même vision même combat boo ko bàyyee Ousmane bàyyiwu ko yow ça n'est sa carte ne n'est aucun. mais <laughs> tu n'as pas trahi Ousmane tu as trahi une nation mu ne ma lu tax ma ne ko mais Ousmane lan mooy bëgg mbébétam mu ne changé ma ne ko yow lan mooy sa mbébét mu ne ma changé ma ne ko mais loolu moo leen boole yéen ñaar donc bu fekkee ni même bu fa Ousmane nekkul yow nga bëgg changement boobu da ko war a bëgg ba tey parce que Ousmane changement boobu la bëgg yéen loolu moo leen boole yéen ñaar. Sénégal ni nga koy gisee neexu la ni muy doxee neexu la nga bëgg changement mu bëgg changement moo leen boole. kon tay même boko gisul mom ba léegi mi ngi ci bëggum changement bobu yow bëggal changement bobu nekkal ci yoon ba nga nekk rek sa moy bëgg changement bobu moy sa carte bobu nga sanil ko anti système bi pour système bi joge fi yu ben la dé mu mo woy wax nga dëgg mais dañ ci waxtaan ci ci Instagram audio contre audio contre audio ba mu nangu mi nek France joy ba sonu non lañuy waxtane nit yi non la ñu ak doomu aadama yi mais du ko gis kenn rek beddi ko waaw waaw daw sànni <laughs> nee na macha allah a repris ses esprits Mola a toujours ses esprits Mola a toujours ses esprits ndéko ndéko mola mola day xeex ak yow des fois parce que ni ngay waxé baaxul parce que ni ngay communiquer baaxul waxna ko ba pare bëgguma wat say communication mo baaxul. te mo la mudul taxaw naa la sa communication baxul arrêté ko ah day xeexaw yow dalay teel a dindi affaire bi nga xam ha li du jall yow yaa am problème communication motax mo la di xex ak yow ci bir wax sa nga xamni ni la yow mi la bëgg nga bayyi li ngay wax yow ya xamul communication mo la mais bëss bo xamé mo la di nga comprendre communication wa moy li ma wax léegi ñu ànd ak mbër jox di tayle mbër yi nii quoi jo ki euh, kii Sonko Macky Sall ah ñu saa di Sonko ak ah, kum ñu joxoon kum ñu joxoon jomaay Macky bi ngi nii jomaay ngi jomaay ngi nii jomaay jomaay bàyyi ah nga saa jomaay kan la joxoon na Sonko joxoon na keneen loolu laay bañ loolu laa nekk di xeex ak yow démb ak tey dem ak tey yaa comprendre boobu ba léegi maa ngi xeex ak yow ndax ca li nga di comment lu tax ngay largué sama combattant yi lu tax ngay largué sama combattant yi. ko indi ñu yu mag yu nga sànni do am ful la taxaw deugal sa bop do am ful la deugal sa bop do jël sa mbeur taxaw tek samp sa mbeur lolou du communication bu baax donc il faut nga xam trajectoire man ci lima nek di dox trajectoire bi boko yombalé ya, rek Macky Sall japp di éliminer rek nga yombal bu sonko indi jomay ya, mu éliminer nah, parce que dang ko yombal dang ko wonni bo paré rek may jëli benen nga dem jëli Cheikh Tidiane Dieye mu kurti kurti nah, ya, mu tuk mu tuk parce que day xamni dang ko yombal do xex do def dara kuti kuti ba dul genné ko na non Cheikh Tidiane Dieye de nangam nangam amon na ben ku dulal ko ay dul yi to xep parce que comme da xam won nga carrément yow luma indi rek nga sanni bo indi mu éliminer nga ne ki mu ne ah non kii nekkul indi lay pexé wala bu xol xol xol ak ah, yoon amul doole même ki nangam ak nangam yaangi largué yaangi ngi suñu mbëri bali ken duko du nonu da ngay door taxaw jëmmal sa bop won ko ni ful la laa ñëwee sama mbeur mi indu moko pour nga daane ko nonu sama mbeur mi dama ko samp sama mbeur mi dama ko samp sama mbeur mi

J'aimerais, tant que xeexee nag ñu bokk benn j'aimerais tegaat tànk Sénégal système ba changé loolu mooy sama fierté loolu damay génn aéroport du Youhou. di yuuxu di Seigneur oh Allah oh Seigneur tu as sauvé ma nation tu as sauvé ma patrie oh Allah Dieu merci damay da ngeen may dégg buntu aéroport Du yuuxu di sant oh ce que j'ai rêvé <laughs> donc man loolu la bëgg tànk bi may teg Sénégal le système bi changer. donc loolu man mënu ma ko def man kese man ak yéen ko bëgg a def man yéen yéen yéen a may sauvé yéen yéen a may sauvé moo tax nag boo leen buggee yóbbu ci mboy ga ma raag ak waaw boo leen ma buggee bu max ca mboy ga ma raag ak yéen ba naaw ba naaw nag ba fu mbaxana doonee benn parce que <laughs> lu ma toog 2019 ba léegi après les élections ba léegi teguma tànk Sénégal ngeen bëgg ma yóbbu mboy ga damay raag ak yéen ban naaw ne la talibaa ngi nii de kenn du ma bu max ca mboy ga talibaa ngi nii dama bëgg a ñibbisi comme yéen dama bëgg a ñëw comme yéen ni ngeen fa toogee ma toog fa di gis papa di gis yaay di dem studio di ànd ak gars yi di teg samay rhyme di teg samay sound gars yi dañ ma dàq loolu namm studio yi namm négas yi nangu teg ataaya bi waxtaan bi njaab bi waay wër ci town bi mais ko namm te doole ma yóbbu mboy ka de bala ma nar a yóbbu mboy ka dañ koy raag ba naaw ba naaw billaahi boo wé boo string yi wékk silib ba ñu ma ci dara waaw wéy du ma bàyyi kenn nag ni may re reete ak sax ku ma bëgg a yóbbu mboy ka ma raag ak yow kon nañ ànd ci stratégie nañ ànd ci xel nañ ànd ci xalaat nañ ànd ci bëgg-bëgg nañ ànd ci système nan lañuy def pour xeex système bii bañ a ñëw largué suñu mbër yi nii jomaay la Macky Sall jomaay jomaay fay na ñëpp na jomaay la na ñëpp accenté wu ci jomaay na ñëpp partagé photo jomaay na ñëpp xam ni jomaay la day dem ci élection yi jomaay fay ñëpp ñëpp nag na ko ñëpp xam condamné wuñ ko te amul dara taxul ci casier judiciaire am voilà léegi nag bu boobaa nag système ba changé <laughs> xanaa dinaa toog nu mu dee dee dee ay at yoo xam ne duma ma live boobu nag day neex sama xel mi dal système ba changé ñu teg fa suñu nit libérer Ousmane Sonko libérer les prisonniers politiques récupérer wàll dëkk bi libérer ko defar ko ci temps boobu boobaa nag live yi live dafa métti de damaa wax ba sama bulli gi xar wax lekkuma ci naanuma ci damaa wax ba sama bulli gi xar ba boobaa nag live bi arrêté nag boobaa sama bopp bii ci saawu ni lay nekk di raayam si di bind di di bind di raayam di teg parce que dëkk bi c'est comme fii rek fii mënu ma fi marche mënu ma fi xeex parce que <laughs> réew mi cocc def canadiens yi newuñu fi di live parce que seen réew nee na cocc man sama réew bu dee cocc baax nëpp nice ñu xeex jële fi système bi teg fi sañu nit bu boobaa nag ma bàyyi laajee nag ñëw Sénégal comme yéen nekk ak yéen di naan di lekk di ànd ak yi di dugg studio ngeen foog ni loolu neex na ambiance studio Sénégal bokkul ak ambiance su kaaw de ambiance studio Sénégal bokkul ak ambiance su kaaw pour ñu ko xamul ñun ñi nga gis yëpp même bu ñu defee sound sound ci kaaw bi. ak san Sénégal bu Sénégal bee koy dàq xam nga lan la ambiance bi da ngay ànd ak sénégalais yi di dund li sénégalais yi di dund di dànk ci ceeb yi inspiration yeneen ngay yor di dànq ci ceeb yi di dànk di di di naan euh, buy bisaab ak kel geeg yooyu di dóor sëm bi ànd ak niges yi inspiration yi boo ñëwee di teg sa refrain sa sénégalais yi jëlal la ko mais fii man mënu ma dóor refrain tubaab bi jëlal ma parce que xamuñu limay wax xamuñu limay wax di bu ma fuck you fuck the system tufli seen wet dem yàlla yàlla xattafaaya ba ndem seen government boo ko waxee tubaab du ko wax donc euh climat bi may bëgg wala euh énergie bi may bëgg ci sama sang duma ko mëna am yow ya fay nek di def 40 voix di changer voix yi foog de foog de système après foog de foog de système foog de foog di changé waay mais bu dee sénégalais sama négési dama naan damay dóor rek nag booy zou tagal ma zou yow foog de foog de système tubli seen wet dem yàlla yàlla hatta faya ba ndem seen government donc day neex loolu loolu dama ko namm dama ko namm de maa ngi ci politique bi di xeex rek mais saay <laughs> booy damay seetaan nii nii gis booy di rab nii gars di rab génn album yi nii waaye may am lu ma métti ma politique bi yàq na sama affaire yi quoi politique naa di xeex di xeex di xeex di xeex ba bu ma demoon Sénégal fu ne ni mënuma dugg ci studio quoi instant yi nii nii nii politique di xeex di xeex di xeex di xeex ba tay la sama bopp lu bari bari bari ba xañ sama bopp lu bari bari bari xeex di xeex di xeex parce que bugg naa nag <laughs> sa waay dellu ci jàmm nag dugg ci studio yi joob gars yi wan gars yi ñii dàq ñu ma rab dàq ñu ma rab ëpp ñu ma flow dàq ñu ma bind lu ñuy gis laay gis lépp jàppale leen ma ci nag te yàlla tax jàppale leen ma ci te yàlla tax lu mën a nekk la système bii dafiy jóge ak buñ fi teg dafiy jógee anti système bi dafay toog pour une seule première fois dans l'histoire du Sénégal anti système toog fi te loolu ñun ñoo koy defandoo tous ensemble tous ensemble ñu booloo jële fi système bi système bi laa la wax nag bépp nooxóor bépp dëmm bépp infiro bépp lekkkatu nit bépp détourneur lolou ce nek la les gars ah? kon la main dans la main la main dans la main And nek ben, bok ben objectif jëlé fi système bi tek fi anti système libérer le Sénégal voilà lolou ce lu am solo te baña a ci lo xamni ko wala di forcer ay mbir c'est pas important. c'est pas intéressant am na benn moom laa tëjee sax moo tax chaque jour rek la nga nekk wane ko expulsé ko même bu mettee même bu naqaree partagé ko parce que dina toll foo xam ni yow rek yaa fay des dama am benn xarit bu ma am fii ci bu ma amoon ci ci internet bi quoi ci Facebook bi ñiy bindante benn xarit bu jigéen ñiy bindante quoi euh, après foog naa dafa euh, euh, lu mu tudd waa Facebook la Facebook mais moom xam nga man aw ma TikTok aw ma TikTok wax naa ko ba sonn ba sonn Sénégalais mais <laughs> Sénégal dañoo naqaree waxal chaque jour gars yi moo laa sa TikTok bi TikTok bi am na un million de kii TikTok man leen aw ma TikTok. aw ma TikTok des fois ñu ñëw rek jël sama numéro commencé ma aw Mollah yaa ma jox sama sa numéro TikTok aw ma TikTok aw ma TikTok xaw ma sax nu TikTok ban couleur la man Facebook laa am. ak Instagram aw ma leneen aw ma TikTok aw ma leneen dama has bin bugguma maanaam bokk quoi bugguma bokk parce que gis naa monde boobu bugguma cee bokk monde nii monde artificiel bi nii monde ay ay ñu ñap ñapa ñapax ñapaxi monde bugg waaye bugg xees par force xonkal sa kanam gi monde yooyu man nekkuma fa donc man à l'ancienne laa indi ñuul ku ko dëgër këcc woo ko bëri na xujju

original bi laa lay jox woo kong dëgër këcc te yooyu dafa am nekkuma youtube sa amu ko non amu awma youtube filtre yi waaw filtre xaw ma filtre ñu filtre ko man loolu moo daa nekkuma ay ci monde yooyu tiktok ak xaw ma lan koy affaire yooyu monde fictif boobu nekkuma fa léegi nag ndaw si moom ma nga ca monde fictif yooyu xam naa foofu lay dem xonkal boppam kucc kucc kucc kucc kucc xam nga wutum jëkkër daa metti Sénégal wutum jëkkër bu ñëwee nag dugal ko ci Facebook ba mais da gis ñu bind ci xaw ma lan am na signature bi da ngay xam ne lii daal TikTok la jógee xaw ma lan daal bu ko dugalee commencé kucc ma gis ko mu yore benn xam nga xaju ndaw yooyu xaju tubaab yu ndaw yi bëri karo toog teg ko ci kawam di woo ko di ko kucc kucc <laughs> jaay ñu viwu tubaab révé di révéloo gars yi viwu tubaab man daal damaa toog rek des ñu waxtaan noonu ko ma gis ko ak xajam bu ndaw bi ki muy wokk xaj beeg di ko di xaj bi di ko solal yéreeg mooy xaju ndaw yu tubaab yi nga xam ne dañuy bugg lekk mu ñëw rek benn journée bind ma ma voilà soxla naa la urgemment ma ne urgemment ma woo ko mooy si waawaay ma woo ko damaa feebar. ma ne ko feebar waaw dama feebar ma ne ah masta waay muy wuy dama dama bëggoon nga dimbale ma lu ma demee hôpital ma mu ne waaw ma ne ko hôpital la kon yow yow fu nekk yow mi yor xaj boobu chihuahua bi mbow mbow googu noonu ak li koy jox lekk ak viu tubaab bëgg yëpp dangaa am sax problème mu dem dem am benn ticket hôpital boo dem fajoo jo dagg ticket ticket hôpital ticket hôpital kon yow xaj bi nga yor nonu nga xamni day lek yow ngay lek yi nga lu nga yanu yep ak li tuba tubaab bi ngay woné des fois nga yor nga woné ben auto bo téyee sa ben loxo ni mu nek ay X5 ak nangam ngay genn ay bel bolit auto yi rafet yi di ci photo kon loolu yep da yow dal xaj bobu nga yor di ko ko toj sa kaw ak di tuba tuba bu kon loolu yep yor nga am problème mu jënd jënd ticket dugg ci hôpital ticket bu 250 rek mu non yow tu ma fais chier non tu ke bloqué ma Tu m'as mais, mais à la fin, tu m'as fait, tu me fait chier. Non, mais merde. Mieux que tu connais. fait hein? Non, non, non, fais chier. Tu le, fais, beaucoup de Ok, coupé, ok, nan nga mun a yore yow saa yoo dugalee nga yaa ngi xees becc wane ni yow yaa ngi en forme des fois nga sol sa yooyu noonu yëre yi xale yi jigéen yi di sol soutien gorge kese sa jumbax yi yëpp kii nga weex ngay wane ni dangaa xees becc dangaa tooy dangaa nangam yor nga xaalis di nekk ci ay oto di di di yor ay xaj di di ko wokku di di kuti kutti ah ma jàpp yow xanaa di nga ñàkk lu ne sauf deux cent boo demee dagg tike boo feebaree ndekete yo 200 sax yoru ko 200 bu mu dagge teke dugg ci hôpital yi yoru ko bolake la mu mujjé def mais amna droit laj ko loolu donc yalla nañu yalla mussel ci dundu yooyu yalla nañu yalla mussel ci dundu yooyu dañu bëgg changer mbir yi nak dañu bëgg changer mbir yi wala sol sa sab tok ko ma lan yor sa xaj ñu tek ko sa kaw di wax ko di gem lo nit yow yow belle vie nga yor yor yi auto sol sa ki xonkal yeneen yi ki ci capp-cappal ndekete yow yoro safa